la moom ñu wax nii mooy dialogue bi njëkkoon am bi ñu woote woon dialogue national bi ñu woon mm-hmm. nit ñi nangoo dem bëccëg bëccëg la ñuy dem guddi de laxtuñu également bëccëg à mm-hmm. visage découvert mm-hmm. dem wax suñu ay doléance teg ay point de charge kii ku woon dialogue bi Macky Sall moo woote woon dialogue national merci gars yi teg sur la table ay amnistie ñu ne bëgguñu révision la ñu bëgg wax lu ñu bëgg ñëpp di dégg ci en direct ah xam nga loolu dialogue la gars yi wër fépp ne ay dil ak diloog wala ay terme diloog jógee ay dil gars yi xaw koo salteel léegi nag ñu doon wax diloog ñoom ñooy dil guddi gars yi mooy ñan ah ñu ko doon wax ci télé rek yaa ngi nga xam rek gars yi mooy ñan diloog salteel ah mais diloog fu mu jógee ak dil non mais gars yi ñooy ñan waxal rek yow kay non mais gars yi kay ñu xam nañ leen rek mooy beneen parti opposition bi doon woote opposition radicale te léegi ñoom ñoom ñooy opposition douce léegi ñooy opposition radicale ndax ñooy xeex léegi ñoom ñooy opposition douce ñoom ñooy négocier guddi léegi yëpp a ñu négocier guddi. ah xanaa gisoon nit dof. man ko dafa am ñuy négocier guddi. wala gisoo vidéo nit dof mujj bi moom léegi léegi def na si glace de. Ah. ah waaw nee na léegi ay xeex léegi nekk ci de. <laughs> Pape Alé Niang moom mu ngi tagg Macky Sall léegi. baalu ah gars yi gars yi gars yi def man moom bëgg naa booy wax.